jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuyooti nañ leen am kontante ak mbégte kon niñu leen koy defalee saa su ne bëgg a topp seen bànneex rek wala seen mbégte mooy suñu bànneex waral wasaare làmb ñu ngi ci àll bi ci ñetti fan yi di leen dégteel li nga xamante ni jot na fi am ci làmb muy lutte traditionnelle démb gis ngeen euh, barki démb ajjuma gis ngeen la nga xamante ni wala samedi la nga xamante ni jot naa xew ci Fatick muy drapo suñu papa suñu kilifa di Cheikh Kanté huitième édition gis ngeen na mu demee ba ki nga xamante ne mooy Waly moo ko jël ci kaw euh, ca ci kaw ki nga xamante ne mooy Doudou Sané tey démb ñu ñëwaat fële ca Fimela ki nga fi woon nga xamante ne mooy roi l'ancien roi des arènes Manga 2 boole fi ay ndaanaan yoo xamante ne gis ngeen Doudou Sané la mu jëlee woon ndam ne tey ñu ngi fii Thialis wala Leewtoo production moo ñu fi woo ngir lan lutte traditionnelle ci njiital ba di Pape Thialis ndeysaan muy nangaan Samb yi ñu wow fi ci lutte traditionnelle boo xamante ne nit bu am solo la dañ fiy dëkk wan na lépp loo xamante ne xew na ci ambiance lépp loo xamante ne xew na ci cosaan lépp loo xamante ne xew na ci culture waaye gis nañ Toubacouta gum dugg see gum na gis nañ ki nga xamante ne mooy Doudou Sané dugg see gum na gis nañ ki nga xamante ne mooy Kani Sadam dugg see gum na gis nañ yeneen xale yoo xamante ne dugg si nañ dañ leen wan ambiance dugg ci biir wan leen cosaan wan leen culture wan leen aada wan leen cosaan kaay ndeysaan kay Sadam eh. ci loo nekk nii rek bi mooy sa ñaata sorti ah, troisième troisième noo def waaw benn demi-finale la amagul de benn demi-finale waaw di ko sant yàlla nag waaw demi-finale bi ku la éliminé général Malika mooy fële ci arène nationale Gambie Gambie. waaw. arène a tamit général fa daanaat mais daaw jéeg daan ko quoi daaw jéeg. waaw mais ren yaag compétition bi yaag général Malika fu ngeen di mujj. non instant yii ñu dajeeku moom a daanagul moom. Ah. waaw. mais yaa ngi waaj yaa ngi koy waajal. waaw maa ngi waajal bu ah. waaw. tey noo dundee fii. Euh, non tey dina neex dina neex de leen rek. Ah. waaw. ndeysaan Kani Sadam champion la. ndeysaan bett ma woon. ni Doudou Sané dina dugg si ci géew bi ndeysaan samp na ñetti xibla yi jël na béjjën bi béjjënu kooba def na ci suuf ak xorom ma ngay wis ma ngay wër-wëral ndeysaan moom Doudou Sané moo finaalu fële ca Fatick barki démb démb fële ca Fimba moo finaalu woon jël ko. finalu Fatick ñàkk ko tey ñëwaat na ci compétition bi. Toubacouta Ngok ndaysaan moom it champion la boo xamante ni depuis yi am ba léegi yaa ngi koy gis muy wane boppam ci mikaay baa ngi noonu ma ngay sottee ko ay butéel ndaysaan moom Toubacouta champion la ndaanaan la Toubacouta kenn du moom ma ngay sottee ndeysaan ndeysaan Touba Kouta ayca ndeysaan am na luñ koy jox Senghor la jël na ko day dem ak moom roof na ko ci ngemb li kaay Adama kaay. moo fi ñu moo woo fii ndeysaan waaye dama waxoon ne Pape Thialis fexeel ba bu sa poste nga fàtte ndeysaan ñun waa lu simple waaye Abdoul waxal ak Doudou Faye si àndal waaye Baye Jili ndeysaan borom Wassare Lamb maa ngi lay ziar di ak Ouzin ak seen cameraman bu ñaawul bii ndeysaan waaw day saf ndangaan sàmm ndeysaan ñu ngi seen Babou Sarr waaw bay Bandé koy ñoom ñaar nan lay demee Bandé bu famille ak Mbaye délégué yaakaar ak taawam ndeysaan borom famille nee na ko da ngay tàllale baram laa ilaaha illallah nee na ko a bari waaw waaw ndeysaan mooy romb noonu ndeysaan Ndiaye Fate moo final ku daal moog Sélé Sélé daan ko waaye moo jël tànk Ndiaye Fatick yi moom Babou Sarr bu Diofior Lamine ak Baara ndeysaan waaw waaw waaw waaw Baara da koy xëcc waaw waaw ñoom ñaar ñoo jool Lamine Baara daan na ko ndeysaan waaw kii yi euh, ñu ngi taxaw ak wala ñu ngi toog ak ki nga xamante ni moo naan Leewtoo production moom moo tax muy Pape Thialis DG maa lay nuyu bu baax di la siyaar. waaw ñu nuyu di nuyu sa équipe bi nga àndal yëpp di nuyu aussi seen kilifa donc di nuyu képp kii nekk si presse ñu koy nuyu. tey gis nga bis bi nu mu mel mu mel ni tëggoon nga fi lutte traditionnelle waat ko dolliwaat ko lan nga ci gis ba continuer ci ci lutte. waaw non c'est un programme annuel bu ñu def donc déjà donc dañuy nekk en train de dérouler suñu programme sur le simple des na yeneen ñetti journaux ñu war a tëgg donc ci lañ nekk nii donc journée bu stop mi ngi ñëw Korité la ak lendemain Korité ñu ngi koy tëgg lu seeseen donc programme la rek bu ñu xam ñu ngi koy dérouler moo ci lañ nekk. programme bu mel ni euh, Boy ñaa ak Tapha gis nañ keroog ñëw nañ fi def seen jàkkaarloo euh, date wàllub date bi foo ci tool waa date ñu ñun dañ jàpp le 25 juillet incha allah lañ jàpp Tapha Tine Boy Niang mais avant boobu dinañ tëgg Kaolack aussi lutte avec frappe te bu ñu paree nii si biir koor gi dañ ko matérialiser tëgg ko incha allah Kaolack. nga jël bis bi tey délégué ko euh, monsieur le maire Karim si euh, Karim euh, ban relation nga am ak moom ba délégal ko bis. waaw Karim dafa nekk suñu mag donc nekk koo xam ne aussi nekk di liggéey goxam di liggéey Sénégal nekk suñu mag nekk suñu kilifa donc bu ñu ñëwee ba dëkkam di tëgg duñ ko dara yàlla ku dul moom. te bañ ko darajaale aussi resuñu si parce que taxaw na si ñu si war a taxawee jàpp na si ñu si war a jàppee ba ànd ak délégation bu mag bi donc vraiment sagal nañu mu nekk loo xam ne ñu ngi ko si gërëm di ko remercier di wax aussi fépp ñu suñu suñu voix fu mën a yegg rek pour que moom aussi ki nga xam ne mii mantooram di président de la République jàppale ko dina ko jàppale incha allah. jërëjëf Pape Thiam. jërëjëf. le maire ñoo ngi lay nuyu di la siyaar di kontaan ci bis bi nga xamante ni Pape Thialis daf ko jël dara jaale la ko parce que lii rek la ñu soxla maire boo xamante ni day gëstu askanam day gëstu goxam rawatina mu doon koo xamante ne daa bëgg làmb ba ñu jël bis bi dara jaale ko tey bis bi lan nga ci yëg. Eh, mbégte bu rëy laa ci yëg ndax eh, ku xam ca Pape Thialis dafa naa ay mbiram Sénégal yëpp la leer Pape Thialis ñëpp a ko xam ci lamb lañ ko xame donc su su ma toogee ba ma nekk maire fii. ak Sénégal fi mu toll ak ni mu yaatoo mu tànn sama commune ñëw ba Ndangaan Samb di fa tëgg lamb ba pare jagleel ma ko loolu amul xamul xamuloo sax fi mu xol bu sedd laa ci am di ko ci ñaanal nag vraiment yal na ko yàlla sotle parce que lii jàmm la ndax ku bégal ku ñëw bégal sama commune rek dafa mel ni man ngay bégal si ndax 2009. ba tey la ma euh, euh, population commune jox bopp fal ma en 2009 falaat ma en 2014 bu ma faloo dama xool ne aussi lamb yi dëkk yu bari ay saaku sax lañ doon warale ma ñëw di xotti saaku yi di def ay arène de lutte di def ay arène ci biir dëkk yi mais tey mun naa la lim ne presque construire naa juróom-ñaari arène de lutte fi ci commune Fimela loolu xam nga fonk lamb fonk culture la wàndangaan seen bopp ñëfal seen bopp ba ba construire seen bopp arène ma ñëw defal leen tirbine bii fi ñu toog nii tey ci lamb yi ñuy am parce que séeréer dafa fonk lamb te lamb yi léegi. recette yi ñuy am moom lañuy ñuy dugal ci jumaa yi am na ay lamb yu bari yoo xam ne tey organiser nañu ko ci suñu communes yi ñoo construire ay mosquée ci ci dëkk yi kon lamb jàppale lamb c'est contribuer au développement de la commune donc ASC yi fi nekk loolu lañ xam moo tax dëkk yu bari fii teg lamb annuellement dañuy am calendrier boo xam ne dëkk bu ne am lamb mais comme lamb dafa dem ba développé boo xoolee fii semaine lamb day am ci commune bi di lundi au au dimanche lamb day am xam nga la lamb am na benn fan nga ci mën a teg wala ñaari fan nga dégg ne am na Diofior am na beneen village. te lamb boo ci dem day fees donc euh, épidémie dañuy njàkkamtoon lii mais pandémie bi moo ñëw wàññi lu bari mais ndok yaakaar naa ne mbas bi amee ba tey euh, suñu commune bi yàlla mu ngi ñuy dimbale naam amoon am na ay cas ci arrondissement bi am ko waaye ñi fi amoon ay cas yëpp yàlla jàppale na leen donc euh, ñu ci sant suñu borom. vraiment di kontaan aussi ci Thialis di di fëddali aussi suñu colère suñu diggante ak moom di ko encouragé ndax man seetaan naa ko tele ci ay lu bari muy wax ci làmp mais il a un langage serein buy wax da ngay xam ne kii li muy wax ci yoon la ko teg avec politesse te xam nga Sénégal dañoo dañoo baaxoo boo yaroo rek ñëpp dañ lay sotle te discipline. moo nekk base fondement loo gis parce que tey euh, mairie bi ma nekk yàlla ma fi teg te gëm naa ne yàlla rek moo ma fiy dindi parce que man nit laa remplacé ala kulli alin keneen dina mos a toog sama place mais sant naa yàlla mais ba ma fi nekkee ba tey dégguma lu ma naqari wala lu ma mëti ci commune bi parce que boo nekkee doomu baanoole ba yàlla ndomu tànk fekk la ñi la fal damaa gëm ne yow da nga war a nekk seen jàmm yow mi ñu fal yaa war a nekk jàmm ñi la fal parce que yaakaar la moo tax ñu fal la moo tax man saa yu ma yeewoo rek maa ngi ut maa ngi ñëfe lu ma yokk ci commune bi ak lu ma def ci commune bi ndax loolu mooy sama devoir mësuma def dakaar une semaine je suis membre du mais man du ma maire fantôme boo ma demee Dakar sama logement lalu ndastal moo fa ne mat la ressort la fa teg ak sama ñaari sës ak sama télé su ma amee plénière ma dem suma paree maa ngi film laa parce que damaa gëm ne dañ ma dañ ma fal pour ma liggéeyal sama commune loolu laay dund ma ci sant nag commune bi yëpp parce que génn ma fi kenn ma fi kenn dara yàlla ma fi teg donc population bi nga xam ne ñoo ñoo ma wóolu ba teg ma ci commune bi tegaat ma fi. maa ngi leen denk sama bopp di leen naan lépp lu ma mënul rek wala lépp yéene sama yéene ci commune bi weesu na sax sama njot ndax ku xamoon euh, commune bi 2009 avant ma koy jël ak ku xam commune fi mu laa léegi nga xam ne en en vrai du changement am na fi ah surtout nag rawatina nag bi président Macky Sall jëlee réew mi jàppale lañu ci lu bari mun naa wax ne tey lépp lu ville yi am fi la am na ko am nañu brigade am nañu douane am nañu caserne sapeur pompier gis ngeen tali yi actuellement on est en train d'électrifier tous les villages grâce au PUDC ak au ak ASER loolu yëpp président Macky Sall jàpp nañu ci Thialis ñëw nekk aussi en promoteur di sutonir aussi sama njiit te nëbbatuwu ci parce que li ñu naan ragal fete day xañ a moom dafa gis vision président de la république mu gëm ko xam na aussi Sénégal seen culture bi gën a fës lamb la walyaane wuñ ko fen bu ñu wàllu traditionnel en Afrique la le fondement c'est ici au Sénégal donc may ñaanal les jeunes promoteurs ko état bi gestu leen jàppale leen les sponsors yi aussi ñi nga xam ne dañ doon sponsoriser lamb nañ ñëwaat jàppale ces jeunes là. parce que Thialis tey bu ñëwee tey fii tey organiser lamb du ñu gis image yu kese mais nañu gis le staff de Thialis ñaata création d'emploi la Thialis di si def recette yi am ci lamb nan nag fan la koy injecté ci population bi ndax bu fekkente ne moom kese mënul organiser donc au am na ñenoo xam ñoo xam ne tey ci Thialis la ñuy pour. joxe seen dépense loolu aussi c'est une création d'emploi donc ñu ko ci sant di ko ci gërëm may sant aussi ñi nga xam ne ñoom laa àndal vraiment ñu ñëw jàppale ma ñoom Nafi les femmes battantes de l'APR ñoom euh, sama adjoint premier adjoint mu ngi fi y a docteur ci qui fait partie de cadre du parti nga xam ne moom itam vraiment jàmbaar la ak mënuma lim ñëpp les jeunes qui sont avec moi ñëpp a ñëw. tey bokk si ak bés bi Thialis donc Thialis ñu ngi koy ñaanal di ko gërëm di ko naan kontaan nañ ci moom bu baax ndax ku gis lamb ci day gis presse bi ni mu ñëwee nga xam ne y a innovation donc Thialis non seulement dafa ñëw pour euh, bégal séeréer yi bégal commune bi mais dafa ñëw aussi pour jaayaale image yu commune Fimela ndax ku xam euh, lawal naka Leewtoo production xam leen ci YouTube xam ne aussi lamb ji mu naa wax ne monde bi yëpp dañ ko seetaan donc ñu ngi leen di sant aussi di leen di gërëm ci seen taxawaay te tànk yi ngeen yëkkati ba ñëw ci commune laa eh, yal na nag tan tànku yokkute ci yéen tànku mbégte te yal na laaxu laaxu ak jàmm kese yal na ko jàmm lal en tout bi ngeen am ci commune Fimela man mi maa ngi leen di ñaanal yal na leen yàlla jàppale. ba seen li ngeen njort ci Sénégal ak li ngeen njort seen bopp yàlla eggale leen seen seen fi ngeen bëgg a egg en tout cas séeréer laa nag olof bi dafa awa tak tuuti. mais deseetoo dara sant naa leen gërëm naa leen. deseetoo dara ndax ba ma dalee dékk ba léegi maa ngi doog ma dékk benn maire bu wax discours boo xamante ne vraiment frappé na ma may ñaan rek yàlla suñu borom kàttanal. dooleel la ba lépp loo xamante ni bëgg nga ko yàlla suñu borom defal la ci lu kawe waxuma la maire sax waaye di nga doon sax ministre incha allah rabbi jërëjëf jërëjëf monsieur le maire. Pathé Niang. sadiki ka nambanta citnelowe yaya basim ga njoti nangim gor felue ah sadiki ka manta cit ne roge yaya ba sim ganjo tit nangin gor feluye sadiki ga na manta cit ne roge yaya ba sim ganjo tit nangin gor feluye ah keke nu leeg na dama ee jam ne faa keke nu leeg na faama joorumiy janqaandey faatu daali faanga laay ah ndey dama ee ne faa kee genu leeg na faa ma joorumi janqaande faa tutaali faa ngel na ye nde daba yam ne faa kee genu leeg na faa ma joorumi janqaande faa tutaali faa ngel na ye ma wali ju fee baña joole yaay ma bugaan ñaan le yaay ñaana barke faa de ko jalla ye Toubacouta moo ngemboo ngemb lu ñu ndeysaan Doudou Sané moo ngemboo ngemb Lagos bi Doudou Sané moo xeex rek moo xees rek ak Toubacouta Doudou Sané kenn du ko présenté ci làmb Toubacouta kenn du moom diggante njool ak ndaama ndeysaan moo sut Doudou Sané ci wàllu poids bi ñu ngi fii ndeysaan Leewtoo production moo ñu fi woo ci jiital ba Pape Thialis ndeysaan xale yaa ngi noonu dox ci diggante Doudou Sané ak Toubacouta ndeysaan Toubacouta ak Doudou Sané du yomb Doudou Sané moo jël démb fële ca Fimela moo final bërki démb ca Fatick tey mu ngi waat fii ci Ndangaan loolu mooy làmb xale yi ñu ngi gën di yokk seen bopp ci sport bi arbitre bi àtte na lu muy yox ak ñoom ndaysaan arbitre bi lu muy wax ak ñoom ndaysaan arbitre bi lu muy wax ak ñoom ndaysaan ndaysaan Doudou Sané arbitre bi suuf waat na dox ci diggante Doudou Sané ak Toubacouta Toubacouta Doudou Sané ngi def ndànk rek Toubacouta jëli na ko Doudou Sané takk na ko wéyale na ko mu bañ Toubacouta sol na ko Doudou Sané ngay dagg gàllaaj yi di sànni ndaysaan bëre Doudou Sané nag bëre bandi la kenn du Toubacouta nee ko tey du ma la may dara munoo finaalu barki démb jël démb tey ñu daja mooy loolu ndaysaan ndaysaan avertissement nee na da koo mbëkk ndeysaan nee na da koo mbëkk arbitre bi sifla waat na ndeysaan am na ku gaañu ndeysaan am na ku gaañu Doudou Sané Toubacouta arbitre bi sifla waat na ba tey Ndeysaan arbitre bi sifflé waat na ba tey Ndeysaan kooku additeur bi moo yëngu Kaani Sadam tëdd na additeur bi moo yëngu Ndeysaan ñu ngi noonu Doudou Sané Toubacouta Doudou Sané Toubacouta ndeysaan ñu ngi jàppante ñoom ñaar ba tey Doudou Sané Toubacouta jàppante nañ ñoom ñaar ku nekk teg na sa bopp ci bopp morom ñoom ñaar ku nekk teg sa bopp ci bopp morom bi fu ñuy mujj ñoom ñaar Toubacouta ak Doudou Sané fii ci Ndangaan du yomb ñu ngi ci goxu làmb mbëkkaat na ko mbëkkaat na ko mbëkkaat na ko wala déet mbëkkaat na ko mbëkkaat na ko mbëkkaat na mbëkk na Doudou Sané ñaari yoon ndeysaan arbitre bi nga koy woo ndeysaan Doudou Sané de moom na muy bëree ma nga dal rek concentré wu ci combat bu Toubacouta bu génnee perte combat bi ndax am na deux victoires wala deux deux avertissements Toubacouta am na buux nga génn nga ñàkk compétition bi noonu lay def ak yow waaw waaw ñàkk romb na ndeysaan ku génn arbitre bi nu muy def arbitre bi waaw Doudou Sané moo génn waaw waaw saako yi fekkiwul kenn yéen fekk saako yi da koo bëggoon buux mu bañ lu xew ma suñu ndeysaan bi siflewaat na dox ci diggante Toubacouta ak Doudou Sané Touba am na deux avertissement Doudou Sané benn boo ko mbëkkaatee nag di ñàkk sa combat yow Toubacouta ndax da koo mbëkk ñaari yoon jël avertissement sol na ko Touba sol na ko Touba sol na fu mu jëw moom Doudou Sané da buux mu génn saako yi da ñàkk na Toubacouta ñàkk na Toubacouta ñàkk na. ñàkk na wala déet 2 3 jeex na nee na ko 5 nee na ko daan naa la juróomi yoon kii na ko daan naa la juróomi yoon loolu la ko wax daan naa la juróomi yoon mu ne ko waxoo dëgg ndeysaan ñu ngi noonu lamb jaa ngi noonu dox ci diggante Toubacouta ak Doudou Sané mënul yomb. munul yomb déedéet munul yomb Adama jëlal ña ngay coow ña ngay coow loolu aussi ma def seede boobu si moom te c'est la première fois mos nañu ko defal defalaat ñu ko salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu ñi fi teew yëpp muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw di jégalu nag ci kaddu bi ndax am na ñoo xam ne lamb moo leen am na ñoo xam ne euh, lamb moo leen indi c'est vrai waaye dama bëggoon allo allo jël bu baax maa ngi jégalu nag ci kaddu bi parce que lamb yi mu ñu tee ñàkk nañu rafetal bés bi donc maa ngi sant également euh, Pape Thialis ndax Sénégal yaatu na nga tànn commune Fimela nekk promoteuru lamb ànd ak Pape Ndangaan Pape Ndangaan defe naa kenn du ko nettali suñu zone bi ndax lu ne def na ko ci lamb lu ne def na ko aussi ci commune bi kon boo jógee Dakar ñëw Pape Thialis ñëw fekk suñu fii ci suñu commune rawatina fii ci Ndagane Samb nga xam ne ay champion jegoon nañ fii lay ñomboor bu ñuy wax lay ñomboor yóbbu na drapeau chef de l'état fii kon suñuy wax lamb Ndagane Samb nu tee des ci ginnaaw kon boo ñëwee fii fekk ma fii ma nekk maire ma nekk ci bopp commune bi depuis 2009 di soox ak population bi may sant d'abord ñi nga xam ne ñoo ma teg ci bopp commune bi ndax fi ma nekk yàlla ma fa teg nit laa remplacé à la couleur aline keneen dina mos a jël sama place loolu laa gëm loolu laay dund ba ma ñëwee it falu fekk naa ay dëkk ñuy def ay saaku may xotti saaku yi di construire ay arène de ba ñu tudde ma arène de lutte ndax cosaanu séeréer ñëpp xam nañ ne lamb la may sant nag ñi nga xam ne ñoom ñoo laa àndal yëpp ñëw fii ñoom docteur ñaan ñoom Moussa Faye ñoom ak jigéen ñi ñoom Takka Senghor ñoom Fat Diouf ñoom Nafi mënuma lim ñëpp waaye maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm Thialis nag commune Fimela amuñ sa pay ci sama tur nag maa ngi lay ñaanal yokkute ndax yow Sénégal yëpp xam nañ la xam nañu également aussi li ngay def ci lamb xam nañu également aussi yéene bi nga am ci commune Fimela kon doxal ñu dox incha allah doo ñu gën a gore dinañ la jàppale dinañ def lépp luñ mën ci lamb ji moo tax bi ma ñib see lañ ma ne dañ laa tudde lamb xatoon na lool ma ne amul problème mu ne ma maire dañ laa tudde waaye santuñ la sax nga def ci dërëm dañ laa tudde rek parce que xam nañu ne lamb bàyyi woo ko mu dem arbitre yi ngay gis nii ak encadreur yi yëpp bii mooy sama deuxième fois ma leen di habillé parce que dañ leen war a encouragé ndax bu nga encadré ay lamb di doxal lamb ba lamb benn lamb masul tëg ci commune Fimela benn lamb masul tëg ci arrondissement Fimela ñii dañ leen war a delloo njukkal moo tax may fëttali également sama colère sama diggante ak ñoom maa ngi sant ñëpp maa ngi gërëm ñëpp làmb nag bu amee ñëpp ñoo fiy daje ñii fiy daje nag ku ci ne bokkul ak sa morom esprit waaye alhamdulilah rabbil alamin maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp merci beaucoup Thialis yal na la jàppale Khady Diouf woy yi rafet na yaa ngi ndey faatu sa woy yi neex nañ li ngay woy neex na tëggkat yi aussi macha allah kon maa ngi sant ñëpp ji gërëm ñëpp merci beaucoup jërë ngeen jëf

ndeysaan Doudou Sané ndeysaan Doudou Sané daan na ko bi ali moom Doudou Sané ma ngay ndeysaan ma ngay yëngu ndeysaan Saliou Thioune ak Karim Diouf kenn du ñoom ndeysaan Karim Diouf moo la woon ginnaaw Adama Saliou Thioune ga jàkkaar lool Adama cey làmb ndeysaan kenn du yow lu laay laal yoon baa la bëgg Saliou Thioune ak Karim Diouf ñoom ñaar ngi noonu Saliou code filance na ko mu bañ ndeysaan Karim Diouf ndeysaan mu ngi noonu jàpp na ko Saliou nga koy indi suñu wet ndeysaan Karim Diouf ak Saliou Thioune ñoom ñaar du yomb ndeysaan ndeysaan daw na jël ko Karim jël na ko jàpp na ko jàpp na ko Saliou day bañ wala déet Saliou Karim ndeysaan ñu ngi noonu ci compétition bi ñu ngi ci demi-finale bi nee leen kaay nee na leen kaay leen làmb ngi nii foo dem ñu fekk la fa ndeysaan da gis ku bàkk ba mu yàgg ñàkk di jooy làmb ngi noonu ndeysaan Saliou Thioune ndeysaan ak Karim Diouf ñu ngi noonu ndeysaan Karim ak Saliou ñu ngi noonu waaye nag seen tur yi war nañ koo changer ndax boo ne Karim Diouf ne Saliou Thioune ndaysaan ci bërëb làmb waroon nañoo changer tur bi waaye gis nga xale yi ñu ngi noonu rek Saliou Thioune ak Karim Diouf ñu ngi noonu doon na ko tànk jël na tànk ba jël na tànk ba jël na tànk ba ndaysaan Karim ak Saliou ñu ngi dem dem nañ jege nañ saako yi du yomb ndax demi-finale la ku daan dem finale du yomb ñoom ndeysaan ñu ngi noonu di yomb arbitre bi woowaat na leen ndeysaan ndeysaan ndeysaan daal xam naa li bëgg naa laal yoon ndeysaan Karim Diouf ak Saliou Thioune ñu ngi noonu ba tey ndeysaan Karim ñu ngi noonu ñu ngi ci demi-finale lese yi waaye actuellement dara xewagul ndeysaan arbitre bi yee leen mbete ku doon nelaw ak Saliou Thioune ñu ngi noonu ñoom ñaar Karim am na lu mu koy ëf ëf na ko ko sànni Saliou Thioune ak Karim Diouf Karim am na lu mu dóor ci bopp ba ndeysaan ndeysaan Saliou moo ëpp njoolaay tuuti moo sut taxawaay moom Saliou Thioune Karim moo gàtt rek waaye Karim bàyyiwul dara sàmmal ma say tànk Saliou sàmmal ma say tànk Saliou ndeysaan sàmmal ma daw na jëli ko filaas jàppante ñu bañ Saliou ak Karim ña ngay jàppante ñoom ñaar Saliou Thioune Karim Diouf ñoom ñaar ngi noonu ndeysaan mbaa dina yomb Saliou Thioune ak Karim Diouf ndeysaan Saliou Thioune ak Karim Diouf Saliou jël na ko fu ñu jëm ñoom ñaar ñu ngi sama kaw mbaa du ñu daanu sama kaw Adama Saliou Thioune ak Karim du yomb demi-finale la mu ngi koy buux Saliou ngi koy buux Karim dóor na ko tànk ndeysaan mu ngi noonu Saliou ak Karim Saliou fi mu jàpp wala Karim fi mu jàpp baax na gàllaaji Saliou yaa ngay dagg Saliou Thioune ngemb li tas na. ndeysaan ngemb li tas na arbitre bu ngemb li tasee est-ce ñu àtte benn mbër bi jekkalaat ngembam ñu dellu siwaat ndeysaan suñu papa coon yàlla ko yàlla yërëm ta xare ko àjjana ndeysaan nee na yaramu neen bu ci ngemb amuloon mu ñaaw arbitre woowaat na leen <laughs> Saliou Thioune ak Karim waaye Doudou Sané ngay yëngu Adama Doudou Sané ngi sa wàllu di yëngal public bi ndeysaan am na ku daw armi bi sifle waat na ci demi-finale tey dox ci diggante Saliou Thioune ndeysaan ak Karim ndeysaan ñoom ñaar ñu ngi noonu ci compétition bi ba tey ndaysaan waaye li may wax mbokk mooy Doudou Sané mii ma gis bu yaboo képp kuy mbër tey bëre nga jël ko léegi daan ko lu at bi di gën di yokk xam-xam bi di gën di yokk doole ji di gën di yokk te bu keroogaa day neex a daan wala day naqaree daan moom Doudou Sané démb moo jël fim la barki démb moo finaalu Fatick ñàkk ko tey mu ngi fii ci compétition bi te yegg na demi-finale kon bàyyi leen ko xel ñu ngi ci diggante Saliou ak Karim ndeysaan ñu ngi noonu Saliou ak Karim ñu ngi jàppante ba tey dara xewagul ndeysaan ndeysaan Saliou Thioune ak Karim ndeysaan ñu ngi noonu ci combat bi ba tey Saliou Thioune ak Karim ndaysaan Karim a ngi noonu Saliou moo leen woon ginnaaw ndaysaan ndaysaan ña nga noonu Saliou Thioune ak Karim ndaysaan ndaysaan Saliou Thioune ak Karim ñu ngi noonu Saliou Thioune Karim ñu ngi leewaatoo ba tey dara xewagul mënul yomb ndax demi-finale lañu toll lu compétition bi di gën di dem mbër di di gën di wane seen bopp ndaanaa ne di feeñ ndaanaa ne di toog ndax yaakaar naa ni compétition bi ku ci toog ndaanaan nga lu bon mooy ñàkk bindu waaye bépp xale buy bindu boo daanoo da ngay gën a expérience arbitre bi attewaat na temps bi jeex na temps bi jeex na

finalu léger ndaysaan arbitre bi sifflé na dox ci diggante barrière ak bandi 40 ans ma xool ba xam bandi 40 day doon bandi 70 ans wala day resté doon ci bandi 40 ans moom lu muy doon base lay doon wala type lay doon mbaa barrière lay doon. en tout cas lu mën a xaw arbitre bi sifflé na ñoom ñaari xale yi ñu ngi leetoo barrière ak bandi 40 ans ndaysaan tur ngay dégg bandi 40 ans ndaysaan bandi nag boo ko xoolee xam ni vraiment nduru na bandi ndax compétition bi bu mu amee ngay continuer di daan di daan di daan ba dem final boo nee bandi 40 ans la war nañ laa takkal médaille. nangu ko ndaysaan ñu ngi noonu ndaysaan ndaysaan ndaysaan ñu ngi léewtoo ba tey dara xewagul ndax barrière nee na daan naa ko fois bi mooy septième fois bi ñuy laale kon nag barrière moom moo gën am confiance waaye bandi 40 day déglu rek barrière nag moo xaw ëpp arbitre bi sifflé na da koo ngàdd da koo ngàdd da bi avertir ko waaye nee ko da nga ngàdd boo ko defaatee ma avertir la ndaysaan mbokk li moo lay wan ni làmb ñu ngi koy décentraliser fu nekk décentralisé yi ñuy def ci làmb moo waral foo dem fekk fa làmb làmb Joal làmb Fatick làmb Fifla Fimela làmb fu ne fu ne rek làmb gi fa waaye xale yi fépp ñu leen woo ci làmb ji wuyu ndeysaan moo tax xale yi tey départ lañu jóge fu ne ñëw ndàngaan xam ne bii mooy dernier combat ci saison bi ndaysaan ñu fas yéene jëm ci weer wu sell weer wu màgg di weer koor ñuy baalu ñëpp ak képp koo xamante ni yaa ngi seetaan wasaare ñu mus laa tooñ mbaa ñu mus laa wax loo xamante ni metti na la wala ñu mus koo wax ci sa mbër te ñu jublu ci sport kese ñu ngi koy à travers wasaare làmb ñu ngi lay jéggalu di la baalu ak di wax jàpp jàppalu ñu kenn dara di baal ak ñëpp di ñaan yàlla suñu borom mi nga xamante ni moo yor njëggal yàlla suñu borom boole jéggal ndaysaan bari kanda bandi 40 ans ak barrière jàppante nañ bandi jàpp na sëq na ci gaño bandi sëq na ci gaño bandi 40 ans ndaysaan sëq na ci gaño ndaysaan bandi zongale na ko sawaay bañ barrière bañ na barrière bul naagu bëreeg moom ñeenti yoon wala juróomi yoon bul ngay naagu ndax làmb noonu la dimanche bu jot mbër daan ku ko mën bu jot mbër daan ku moo tax làmb sport la rek gannaaw yaa ngi entraîné yokk doole ji saa su ne ngay mën di wane sa bopp ci compétition yi arbitre bi àtte na ndeysaan avertissement pour kan barrière mu ngi doon xool sengoor yi ñi mu àndal ne nañ ko bëreel làmba ngi ndeysaan làmba ngi ndeysaan làmba ngoog ndeysaan bandi 40 ak barrière ñu ngi ci compétition bi mënul yomb ndax final la faw mu ànd ak calcul daw na jëli ko barrière daw na jël ko mais bandi 40 ans da koo gis sol na ko bandi 40 ans sol na ko ndeysaan bandi 40 ans sol na ko ndeysaan bandi 40 ans sol na ko ndeysaan bandi 40 ans sol na dóor na tànk ba fàqan na ko war na ko ndomba bandi 40 ans kat api am na yan na ko ba ci kaw dóor ci suuf wala déet yan waat na ko dóor ci suuf bandi 40 ans Maodo daa war a bandi 75 ans mbaa bandi 100 pour cent bandi war na ko war bandi 40 ans war bandi 40 ans war na ci làmb war rate bandi 40 ans koy forcer mu koy forcer yanu na ko buddi na ko door na ko ci suuf jël am na wala déet waa lii mu doon bandi 40 ans war na ndomba barrière mbaa du na ko ci daanu na daanu na daanu na daanu na daanu na daanu na dama gis nga war ko ndomba may ko temps mais ci kaw dóor ci suuf mu bañ nga yéen war ko dóor ci doole rek. bu ñu seen ñaata daje. non daan na ma ñetti yoon. ma daan ko benn. cinq. waaw mel ni kon da ngaa fayu. waaw maa daan na ma ñetti yoon ma daan ko ñaar. Ah. doole kese. li nga war a fas yéene dem koor doole kese. dina neex kese. ay bandi soixante-quinze ans. nañu man six fois laa na doon set loolu la a aw ma si droit. ndeysaan ayca. ne d'accord ma nga dem si table technique bi ni damay def recours recours bi aussi ñun dinañ ko gérer ba ki nga xam ne moom moom waaw dama xam nga rek dama amul toog waaw affaire dóor waar rek waaw waaw maa ngi jël lamb bi si waaw yaa ma gën a xam waaw trop man tamit maa leen gënoon namm waaw. maa ngi moo di bëggee tamit ñoom ñëpp xam ku lay bëggee moom amoo fayam. ok jërëjëf. ci Karim Diouf. du saane bi mooy final bi. mbokk yi ñu ngi ci lundi 12 avril 2021 fii ci Ngane Sambal Leewtoo production moo ñu jàppante ne mu ko bëgg jaay doole déet Doudou Sané koy jaay doole bañ na Karim Doudou Sané génnee na ko Doudou Sané génnee na ko <laughs> lamb ji du yomb du yomb benn arbitre bi sifflé waat na ndaysaan Doudou Sané ak Karim Diouf ndaysaan ñu Doudou Sané ngi dox ci ko mooy final bi fii ci Ndangaan Samb Leewtoo production moo ñu fowoo ndaysaan njiital ga di Pape Thialis mbokk yi ñu ngi ci 23h23 23h23 minutes tey nekk le 12 avril 2021 ñetti compétition yi am yëpp. moom Doudou Sané moo finaalu ndaysaan ndaysaan Doudou Sané mu ngi woote to fat ndaysaan Doudou Sané yàgg na lii sama xel dem na ci tàkkusaan ba mu bëreeg booy fay nii la demee woon ndaysaan démb def na ko bërki démb def na ko bu yàggee day mel ne arbitre yi dañ lay soofantal ndaysaan gis c'est bon na ci compétition bi moom Doudou Sané sifflé sifflé na ndaysaan Karim Diouf Doudou Sané ndaysaan Karim Doudou Sané Karim a ngi koy déplacé ndax diggante luur la ak boo ko déplacé bu xamul ni muy jugee tànk yi mën naa jóg bu perte équilibre rek di ko mën a jël combat jeex Karim loolu la bëgg a def waaye Doudou da ko bàyyi boppam Doudou Sané ak Karim Doudou Sané fàqan na ko Karim dem mu dox ci kawam ndeysaan doole mbaa dina yem lu munti xew mooy doole yemul ci combat bi mais defal ndànk Doudou Sané jël na Karim jàpp na ko am na Karim li mu bëggoon lu Doudou Sané bëggoon kaw Karim Diouf am na ko daan na ko wala déet taxabal na ko Karim bañ koy daan daan Karim bañ na Doudou Sané njett na ko daan na ko wala déet mu koy waajo Doudou Sané na compétition bi Doudou Sané jël na compétition bi. Baye Djili moo ko final woon keroog ak El Hadj Ndiaye bu Zawal génnee ko par point tey mu final ko ak Abdou Karim Diouf borom Zawal xam ne daa ay ci waaye tey gis na poids bu koy jaaxal mu daal waaye dama ne la doole doxul jàmm su amoon doole nga xam ne dina demee neneen waaye Doudou daa xew l'enfant sori na Diofior mbokkum ndeyum Babou Sarr mbokkum ndeyum Ibu Ndiaye Diofior mu nekk booto si ginnaaw Eumeu Sène instant yi nekk écrit si nga waaye bàyyi jëli li simple mooy lamb soo bëggee dëgg-dëgg li simple mooy mooy lamb laa liyoon kontaan naa ci moom mbokk yi ñu leen ñaan koorub jàmm yàlla nañ ci dugg ak bismillahi rahmaani rahim yeggalee ko ak alhamdulilahi rabbil alamin ñaanal képp waay mën a nekk moo xam ci réew mi ak bitim réew yàlla na nga dugg ci koor gi ak jàmm ak salaam di leen jox dig daje ba ëllëg ak wasaare lamb dina neex dina yomb